Hein, par la suite avec exigence du permis comme les yalla dogal na ñi ngi rattraper wu ci cadre de ci formation bi ak obtention des permis Nous avons ni war nañ ko pour nous war mëna nek lu am solo la euh, monsieur le ministre je vais revenir encore sur l'âge des véhicules importés nit ki kenn du ko xeebal euh, mbokk moodu-moodu yi ñoo laaj am nañ ci yitte euh, bu ñu japp rek ni amna ay embouteillage à Dakar wala ci benen gox ñu bëgg leen ko xañ wala limiter âge bi di favoriser ben yenn lobby yo xamé ni tey li seen yitte yépp moy fexe indi auto yu bees di ko jaay amna ñu amul bobu doole nañ leen ubbil buntu ñu mëna indi seeni auto ndax ku ne xam ne ni oto bu def 10 ans en Europe am na nu muy taxawee danaka mom auto bu bees fi ñoy tollo te les autres pays limitrophes ñong koy permettre muy dugg amna ñu koy immatriculer même au à Bamako au Mali donc bima ci tek monsieur le ministre dafa am association des sénégalais chauffeurs professionnels bu nekk en Europe ñom ils se sont bien organisés euh, wax deug yalla ñi ngi def liguey bu am solo ci cette bir ci solidarité ci formation bi ak taxaw bu ñu taxaw askan wi foofu ak yeneen i initiative yi ñu jël pour mën a faciliter le réinsertion au pays te ñooñu yaakaar naa li ñuy demander bariwul kon euh, bu ma sañoon ñu recevoir leen waxtaan ak ñoom seet seen projet yooyu ñu bëgg a indi ci réew mi naka lañ ko nan leen leen ci mën a dimbale loolu aussi euh, lu am solo lay doon après avec vos techniciens buñ ma ko waxee ñuy wax leen ko comme ça ñu fixé jur bi ak ak heure bi incha allah ma ñëw ci la sortie de l'autoroute à Rufisque au niveau de Rufisque ça pose problème fi mu ne boo jógee aéroport pour dugg Tëngéej da ngay ñëw ba fay quatre cent retourné waat fayaat quatre cent pour mën a ñëw ci sortie Rufisque boobu la ñu bàyyi ci xel seet nu ñuy ubbee nu ñu koy duggee sur la route de Sangalkam pour dem vers l'aéroport ak la sortie bu fekkee loolu ci jàmbati la bokk euh, monsieur le ministre les Jakarta wax nañ ko fii fii lañ taxawoon am ay kilifa yu sponsorisé ay Jakarta mu doon catastrophe ñëpp wax nañ ko Jakarta du métier buñ bëggee dimbali xale yi dañ leen jàngal beneen métier bu dul Jakarta dem ba di leen sponsoriser di leen may ay kaskat yooyu yëpp mooy dugal xale bi ci benn couloir boo xamee ni couloir de la mort daanaka lañ ko mën a tuddee moo indi accident yu métti yi ñuy wax les chauffeurs là ñi ko fi wax léegi ils ont raison on ne peut pas permettre transport public ab xale bu amul 35 ans di ko dawal dañoo war a limiter âge transport public yooyu la yooyu ci la bokk et puis on dirait qu'il y a des des intouchables dans ce secteur moy ñi nga pas yu mag yi wër sont des intouchables du leen arrêté du nu fu aussi ça pose problème donc monsieur le ministre euh, man saluer sa comportement parce qu'on a voyagé l'autre jour ensemble ma gis humilité dans la personne nit ki mën nga ko bañ a xam mais nga gis comportement ci benn facto nga mën ko atte ci doxalin ci taxawaay loolu aussi vraiment maa ngi lay encouragé ci boobu voie merci monsieur le président je vous remercie chers collègues la parole revient maintenant à notre collègue Adji Adji Diara se prépare